ci biir njaal mi ak actualité bi sëriñ bi yëkkati kàddu yu am solo yuy leeral doxalinu lislaam rawatina ci tarixa tijaaniya leeral boobu nag dama ci sant yàlla bu baax càmm ndax senegal dëkku diine la te jàmm si la lépp xecc kon yéen ñi nga xam ne tey kaddu gi ngeen yëkkati si turu Thierno Amath Tidiane Ba xalifu Medina Gounass jëm ci leeral digganteem ak Tiwaawoon digganteem ak xalif général de Tiwaawoon muy tey sëriñ Babacar Sy Mansour fàttali jaar-jaar way juróom di sëriñam Thierno Mohamed Seyd Ba jaarale ko ci Cerno Ahmadou Baro nekkoon taalibe si Seydi Hadji Malick moom it mu jot wérdu bi ci ay sëriñam ba yegg ci si Cheikh Ahmed Tijane kon loolu yaakaar naa ne war na doy képp kuy jullit ku fi toog ak ku fi toogul. Asfiyahi FM. en tant que njiitu réew mi nag maa ngi ñaan ñëpp ñu ànd ak dal. ànd ak teey te xam ni ci biir dal ak teey boobu ak dëkkandoo ci jàmm ak salaam ci nawlowante ak ci joxante orma ci la Sénégal mën a nekkee ci jàmm ak salaam nguur gi du moom mooy tànn kuy jiite juma walla kuy nekk xalifa nguur gi li muy def mooy ànd ak njaboot yi ak jullit yi wala sax chrétienne loolu mooy suñu rôle waaye du dugg ci ay jafe-jafe yu am ci biir diine maa ngi ñaan nag ñu bokk ci kër yu mag yëpp di këru diine yi kenn ku nekk ci ñoom sa maam ba ngay wuyoo dafa liggéey lislaam bi yàlla fay ko li tax tey set yi ak sëtaat yi ak sëti sëtaat yi di ci barkeelu ba tey kon war ma boobu lay ñaan rek ñu sàmm ko rafetal diggante yi lii nag jubbalu ma ko ci kenn waaye baaxoon na ginnaaw leeral ngeen lii man it président la république ma xamal ne bu ñu ma dugal ci waxu diine ak par parloo ndax ñëpp laa fi nekkal en tant que président de la république mënu ma dugg ci benn par parloo ah, li ci des nag xam naa ne maa ngi ñaan sama xarit Ahmed Khalifa woo naa ko bi may wàcc Tamba te dinaa ko woo bu ma fi jógee. ñaan ko ñu fexe ba lépp lu lent lent ñu dindi ko te dox jàmm ci diggante kër yu mag yi ndax jur yi ak maam yi ci jàmm jooju lañ doon dox ma koy ñaan it ñépp ñu nekk ci kër yu mag yi ñu wàññi xadara bi wàññi coow li te jublu ci li nga xam ne moom lañ leen di xaare muy diine ak di won nit ñi yoon ak di leen won njub loolu la ñuy xaar tam ci kër yi kon maa ngi sant di jégalu nag waaye lu ma waroon leeral la ndax occasion la boo xam ne tam su ma noppee rek dem mel na noonu lii mooy li Thierno waaye li président wax kenn xamu ko te comme réew mi kenn mënu fi mucc man it ma leeral loolu moo waraloon ma jëlaat kàddu gi di nuyu xalifa bi di ko ziyaare di ko jégaluwaat ci kàddu yooyu jërëjëf.